que situation économique boo dégloo président Boubacar wax na ko le 31 décembre le président de la République def na son discours à la nation wax na def na un bilan te waxul bor yi mu bàyyil Sénégal mm-hmm. boo seetlee depuis son avènement dafa basé wu sur l'endettement public massif pour financer l'économie de ce pays-là actuellement le Sénégal est endetté à plus de treize mille milliards n'est-ce pas yoo xam ni bor la bu ñuy teg ci ndogu ndoddu sénégalais ñu war ko fay fii ak vingt à vingt cinq ans. Mm-hmm. au moment où le Sénégal regorge des ressources naturelles am nan gaz am pétrole am or am zircon lépp ñu saax saaxee ko au lieu que ñu valoriser ko au lieu que ñu fexe ba nga xam ni moom la ñu utiliser pour financer suñu économie mais dañu base lépp ci lépp moo tax loolu c'est un problème. Mm-hmm. ce qui fait que actuellement lépp jafe dund gi cher da ngay bëgg a faju doo faj jeunes yi ñu ngi def mbëkk mi ñii di dem Nicaragua yooyu yëpp nag. le président Boubacar Camara indi solution tënk ko ci livre bi construire le Sénégal du futur bu ko def bu ñu ko faalee le vingt cinq février day euh, ubbi tey liggéey tey mhm. su ko defee lépp loo xam ne yàqu-yàqu la lu ñu waroon mu defar ko lu ñu waroon def defaruñ ko mu def ko loo xam ni dañ ko war a reprendre refaire ko mu refaire ko lépp loo xam ni manquement la mu def ko